asalaamaaleykum jigéenu PDS alaikum les femmes du secrétariat national exécutif alaikum, les membres du comité directeur les militants et les mouvements de soutien maa ngi nuyu jigéen madame la présidente notre secrétaire général national adjoint Touré Je ma nuyu jigéen ñi ci turu ñun juróom-ñeenti ko may madame Loum ndax bu wéyoon moom dina maa ngi nuyu Adja Awa Bitey mi bokk secrétariat bi di nuyu Thiaba Gueye Jaxeer Sarr di nuyu soxna Mbay Màkke Abibatu Abubatu bu Njoona ak Issa bu Tiwaawoon ñun la yàlla boole commission secrétaire national chargé des femmes bi ñu ànd ak Wore muy suñu mag muy suñu mag ñu ànd ak moom nag di ko gunge mu ñuy gestu nag ñu koy xool dara nag umpuñu ci lépp luñ fa organisé ñu nag ñoom moo ko ñoo ko bokkandoo maa ngi nuyu délégation bu président Ablaye Wade yónni ñuy nuyu suñu pap suñu xarit président Ablaye Wade yàlla na gudd fan. ñu nuyu ñuy nuyu suñu frère suñu candidat le candidat cœur le frère secrétaire général Karim Wade ñoo ngi nuyu góor jigéen le Sénégal l'extérieur bàyyiwuñu kenn ñu di leen dalal yéen waa région yi ci turu Woré Sarr ñun les femmes du secrétariat national ñu ngi leen di dalal. yàlla na leen yàlla teg ci yàmm indi leen ci jàmm yóbbu leen ci jàmm ñu kontaan ci mobilisation bi ndax jigéen ñi xam nañu sonn ngeen waaye mbir mee ko laaj ñoo ngi nuyu nag permanent yi ne fii ci biir parti bi di nuyu honorable député yi di góor di jigéen di nuyu les maires di góor di jigéen di nuyu les quatorze régions et les quarante six départements wuñu kenn ñoo ngi nuyu suñu président groupe parlementaire Lamine Thiam ñoo ngi lay sargal di jël nuyoo député yi di ko jaarale sa loxo ñooñu nuyu suñu sœur Ndeye Gaye semi yor parité ak genre ndax si biir commission boobu la ñu bokk bàyyiwuñu kenn ñu leen di jaral jàmm kontaan ci mobilisation bi maa ngi nuyu nag sama waa région waa Matam maa ngi nuyu waa podoor maa ngi nuyu waa Relief Nafoore Fuuta ma kenn parole bi nag buñ ma ko joxee tamit il faut ma sànni suuf si gën a rek du doy moom frère maa ngi lay nuyu di jël sama nuyoo ak sama njébbal. jigéen yëpp di la ko jox nga joxal ñu ko Ablaye Wade ñu ngi sargal Viviane Wade di ko teelu di xool ci moom ndax lu jigéen am moom la nag moom mooy premier jigéen bés bi tey moom moo ko moom kon moom moo war a nekk marraine bi waaye jël nañ lépp delloo ko ko ah li ñu wax nag fii bëri na may mun a ñaa yé ñu maa ngi leen yi ñu wax bëri na waaye foog ñu sànni ci grain de sel ndax jigéen ak politique am na lu mu wax fii ci bii permanence bi ñu toog tey muy weeru 19 mars di weeru 8 mars te mars xam ngeen buñ koy wax Ablaye Wade tax moo indi parti sagal jigéen moo ñu nomel premier ministre moo ñu nomel ministre de la femme de la famille de l' entrepreneuriat féminin ak de la microfinance ba ñu ko nomalee ku ne xam na ministère boobu amoon na ndax quinzaine de la femme ñun la lii ñuy def tey jii ay jigéen dañ fi daan jóge dem ba Amérique di ko feete ji te Abdoulaye Wade da ko waral kon yéen jigéen ñi takk leen seen digg ngeen xam ne doon jigéen tax to yaa fus jigéen na nangoo mobiliser jigéen ne nangoo organiser waaye jigéen ne nangoo ñaan cëram jigéen ne nangoo xam li mu moom bu ñu kenn féetale ci xeex bu ñu kenn féetale ci xuloo bu ñu kenn jox ndomb tànk pour ñu jël ndam tànk ti ko xeexee nañ leen booloo di jàppale suñu moromu jigéen góor ñi bañ ñoo utiliser ñuy feewale suñu biir di xeex suñu biir sañu xam ne parti bu ko Ablaye Wade waxee du caageen ne góor jiitu jigéen jiitu rek déedéet jikko ci la moo ñu jéem a xam lu ñu bëgg

mu ngi bëgg a dicté moom dong moo ko war a jubbanti ndax li mu fondement kenn raaxu ko kon jigéen ñi bu leen nekk échelon bu leen nekk kenn ji leen defal arme jàppale seen bopp ngeen boole ci ay moyens nag di cotiser dërëm ak dërëm bu yàggee million lay door ngeen bañ waxaw ngeen tàllal loxo mbaa ku ma joxul paas du ma ñëw mbaa ku ma yóbbul du ma ñëw kenn ku nekk na jéem a góorgóor la am jom xam ne Ablaye Wade nee na sagal na jigéen te bu mu ko sagalee tey def na ko ndax nee na bu góor jiitoo jigéen topp te ñun ñëpp ñu ngi ci préfecture yi yi ñu ngi ngi ci convention jeune Wade moo ko waral sa way nag daa xawoon naqar waaye ñun secrétariat bi ñu ngi leen remercier